àlleen ma seen ñi nopp ma xibaar leen li si yéenekaay yi quotidien national bi di Le Soleil la ñu koy dooree yéenekaay bi di ñëw ci conseil des ministres ba woon démb ak dogal bi fa njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye daal di jël te mooy gouvernement bi yëpp la daal di woo si gox yi nga xam ni ndoxu euh, dexu Sénégal bi da leen laal ba ñu mën a tàmbaliwaat seen ay activité euh, ba tey républicain nee na lu soxal législative yi ñu jëm moom Bassirou Diomaye Faye di njiitu réew mi sàkku na ci gouvernement bi yëpp ñu daal di def lépp li nga xam ni war na ngir campagne électorale yi mën a mucc ayib campagne campagne électorale yooyulee enquête moo ngi ñuy xamal ni Karim Wade ak Macky Sall boo moyuwul duñu ko fekkee te loolee mën naa jaxase carte gi waaye nag fi mu toll nii carte gi jaxasoo na ba noppi ndax bu ñu sukkandikoo ci réew mi quotidien Déthié Fall génn na ci opposition bi moom njiital PRP dëggal na ni bàyyi na waa sàmm sa kàddu ngir jàppale Pastef foo ñëw ci euh, li nga xam ni moo waral départam moom Déthié Fall ci sàmm sa kàddu ngir fekk ji waa Pastef te mooy tànneefu politique dañu koy def ci euh, li nga xam ni moom la sa conscience jox waaye itam ci bëgg-bëgg askan wi te moom Déthié Fall ñaar yooyee ci la tënku ngir fekk ji waa Pastef waaye l'indépendant moom haute trahison la ko daal di tuddee daa jàpp ni Déthié Fall daa war waa sàmm sa kàddu comme ni ko Jibril Ngom defee woon ak waaye wi Askan Wi ba tax laas ne fi mu toll nii Pastef moo ngi roy Macky Sall ndax transhumant yaa ngi jóge fu nekk di ñëw jëm si ñoom Déthié Fall ñëw na ki nga xam ni moo di Faly Seck di maire bu Ross Béthio ñëw na Papa Banda Dièye di maire bu Sall di maire bu naba Nabadji moom it ñëw na ñoom ñëpp kon Pastef la ñuy voter ci législative yi waaye la dépêche moo ngi ñuy xamal ni pur ak réew mi weddi nañu ba mu set li ñu ne woon rek dañoo fekk si waa Pastef Amadou Ba moom Dakar Presse nee na dem na dooleel Bart ak ki nga xam ni moo di Macky fii ci Ndakaaru ndax coalition jàmm ak njariñ bi mu jiitee dañoo retiré seen candidature ci capitale bi ngir jàppale candidat bu sàmm sa kàddu di Babacar yéenekaay bi ne mer ba futt lañu def ci APR ndax seen doxalin ci coalition takku wàllu Sénégal te mooy séddale bukki bi nga xam ni moom la ñu def ci liste yi ñu wëyal ak Vox Populi mi ñuy xibaar ni euh, ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko 28 euh, wala 29 octobre la daal di jàpp euh, ngir débat bi mu war a def ak Amadou Ba source su a dolli ci ni ITV di rajo bi nga xam ni di télé bi nga xam ni moo bokk ci groupe E-Media la ñu tànn rek ngir mu animer débat bi député yi ñetti journaliste yéenekaay bi nee na ñooy animé débat bi si diggante Amadou Ba ak Ousmane Sonko ñaar ñi nag débateur yi ñoo leen di seen bopp ki ci des Simpix moo koy tànn nee nañu nag ku nekk si ñoom di nga am douze place pour sa équipe benn bloc-notes benn stylo ak benn butéelu ndox débat bi ci diggante vingt huit wala vingt neuf octobre lay daal di am ca école d'art oratoire bu Ndakaaru fi mu toll nii nag ci Amadou Ba la des ngir mu tànn si ñaari dat yooyu ban dat ñu jeexal ak mi ñëwaat ci mbirum Dieynaba Ndiaye ñu ñu ko doon woowee jeewo ak docteur ba dara Mbacké yéenekaay bi ne benn témoin ak benn certificat médical moo wone ni li docteur Alioune Badara Mbacké waxoon ne jeewo moo gaañ boppam loole dara amu ci teg ci 19 avril 2024 chauffeur am ak ay agent yu district sanitaire bu maatam ñoo ko jàppale ci violence bu tar bi nga xam ni teg na ko ci kaw jeewo procureur bu bees bu Matam nag moom daal dinay jàppalu ki nga xam ni moo di docteur Mbacké sanitaire bu maatam Matam Mayacine Gueye eh, di cinquième suspect bi moom nag dafa daw ba fii kenn gisu ko fi la ñu ndar keppee li ci yéenekaay yi ma dew leen seeni nopp ba ëllëg ak jàmm ci Sénégal 5 TV jërë ngeen jëf